ñi nangu nañ seeni kër té teguñu ko si yoon ñii nangu nañu seeni cantine yi nga xamné fa lañ doon la di ci liggéey ak seen di ci dundal seen jabot ñi tol ya yoron fofu lañ ko ñaké fukati nañ ko ñi école yeeg daara yi ñu amon fukati nañ ko boole ci ñi nga xamanteni ñom ay artisan lañu ak ay brocanteur loolu bi mu amé it jaar nañ ko fiñ ko waron jaar yépp waxtaanal nañ ci ak ñi ci waroon waxtaanal ñëpp ci jamono jooju bindoon nañu ba président recevoir ñu ñu waxtaan ceeg moom wax ko lépp li nga xamante ni moo ñu naqari mais amul benn saafara ci booba nag la ñu bind plante en juin 2019 adressé ko les bailleurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñoom la seen loxo gën a taqee ci mbir mi muy AFD ak. Euh, la Banque africaine de développement Si nous avons eu plainte boobu Nous ñu saytu ko mbir experts indépendants ñu étudier ko ba wax plainte bi wax mu recevable ci nonu invité état du Sénégal ngir mu ñu waxtane mbir mi maanaam ñu def médiation conciliation mais liñ ci bett moy dañu dem ba ci bir apex mi nga xamanteni mom mo moo doon état du Sénégal ci kuréel googu. dem ba ci bir, mu mu wëlbatiku mel du won mom genn ci ba set ci wécc ndax bañu waxé lolu loolu d'accord ci ñun ñëpp lolu biñ ko défé ñom sen tontu donc leer na amuñu benn volonté pour. jamam pour ñin ñu jot suñu alal té ñom xam nañ ñu togn nañ ku nangu kay yenn yi xam nga di togn nga ni ñun lañ doon wax demb ba projet bi commencé bañ ñu ko annoncé bis bañ ñu ko annoncé ci la collectif yeb judd ndax kenn ku ci nek xam nga ni liñ la fa wax ni normal lañ lay fayé baxul santul yalla te jaarul jaarul yoon parce que li mom li fi nek ci ki bi jubadi mënta weesu lii jël dem leb alolu jambo dem leb ci banque bi ni diw laa ciy fay demaat diw moomu jotul ci xaalis bi juróom-ñaari at ñu leen koy topp di yuuxu fu ne di leen wax fu ne ñu di tëppër faalewuñu kenn ñu dem ba banque bi waxal boppam ni ay la yéwén yéen li ngeen doon wax dëgg la xaalis bi ñu joxe woon ngir ñu jox leen ko agsiwul ci yéen loolu nag dafa am lu muy jur mooy da leen di dugal ci ndóol ci toroxtànge goo xamante ni dootoo leen ci jóg ba faw muy président Diomaye fay ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko yëgal nañu leen ni lii xew na fi nii la fiy demee nag léegi fii la mbir mi toll ñoom it yaakaar nañu ni ki la doon xeex la démb di la fay la lakk bu fekkee tey jii moom mooy yore sapeur pompier ba yore ndox ma yore lépp defe naa fay nga fa gën a gaawe kon donc ñoom it ñu ñu leen tàllale woon loxo démb ak bërki démb noonu la ñuy continuer tàllal leen loxo ndax lii tamit. si ñoom la mën a saafarawoo